te lepp ñu ko ak mom ta am ci ngeerumul sëriñ bi bokk yi ñu ngi leen di nuyo ci barab bu tedd bi su ngeen jakarlo ak jëm ji nga xamne da jaayante ak dundam lepp jébbal ko sëriñ Tuubaa fas yéene di ko liggéeyal cheikh ibnu cheikh Abdoul Khadir mbake ngak nga xamne ne sëriñ bee ko tanal bopam tek ko ci bop yoon wi mu yore kaddom ak ak ak ak tankam ak loxom sa yu yekete kaddom ci ndigalul serigne touba rek lay waxe tey jii ñu toog ci wetam fas yéene ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoo di waa kër sëriñ Dame Ndiaye Serigne Dame njaay bokk ci taalibey Serigne Touba yi dëkk ca Thiès sun borom jox ko taraanga mu làmb ab xolam yëg ne taraanga ji yàlla jaarale ci loxoom Cheikhul Khadim ko moom mu jaayanteeg sëriñ Touba ngir liggéeyal ko nag liggéey boobee mu war a doon jumaa ju mu war a def ca Thiès mu dëppoo ak kër sëriñ tubaa jumaa joojee nag mu wax ne moo koy liggéey ci ñaqu boppam ginnaaw bu mu jëlee terrain ba def ko addiyee Serigne Touba ba noppi bis boobu ñu war koo woote mu war a nekk la 10 juillet di amee ca Thiès moo tax ñu toog ci kanam Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne bi waaye balay booba dañuy yëkkati kàddu gi jox ko Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne danañu waxal njariñul tabax jumaa ak la ci sunu borom dige ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam lam ca wax ak sunu yaakaar Cheikhul Khadim lam ca liggéey su noppee danañ jox kàddu gi. serigne ahmad Ndiaye mi wax ci touru serigne dam Ndiaye ma nga xamne moy mooy liggéey ba su noppé serigne Cheikh ak serigne Cheikh Guédé dana yëkëti kaddom Cheikh Mahamadul Basir nak xamal ñu liggéey ba ak taxaway ba ak na ci serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa fas deme kon ñun ñëpp ñu ma ci déglu serigne Cheikh khadim Mbàkke بسم الله من ميلي لغير رضا ومن صدوري عما amma وفرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa عالم الإسلام يب نجلن دنيو تدلين سيارة دجيت في سيارة بابو الشيخ محمد المنطقة كم نيكو سرين فضل الله خير لاجي ديكو نيانا لسن بروم بي قد الفن بلول تأندكو وير ba limu fasiyene liggéeyal maamam sun borom bi sottal ko bam sotti and ko mboolem njabootug cheikhul xadim gi yépp ak talibi ak ñépp mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii ci bërëb bu sell di bërëb boo xam ne nii it ki nga xamee ne moom lañ fi fekk si di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdul Qadir niñ ko waxee léegi nga xamee ne dafa jël léppam jaayante ko di ko liggéeyal cheikhul xadim mu yan yan bu diisit boo xam ne nii kenn ku nekk xam na ko ñaan sunu borom bi mu woyofal ko ci lool barke Mustafa ba it naan li mu am yëpp it sunu borom bi sottal ko barke xadimul Mustafa ginaaw loolu mbokk yi li ñu fi tax a dajale moom mooy tabax bi nga xamee ne bëgg nañ ko waajal ngi tabax boo xam ne nii dañuy tabax néegub yàlla néegub yàlla nag buñ koy tabax euh, loolu ki nga xamee ne moom moo jug ngir ne di koy tabax ne da koy tabax na xam ne def na lu rëy rëy loo xam ne lu sun borom bi tabaraka wa taala bëgg la lool loo xam ne da koo سن برام واخنا القران انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعصى اولئك ان يكونوا من المهتدين تبخ نيغوب يالا مبوكي لو ورلا اب جوليت بو خامني ني سن برام بي ماينكو كاتانو مو مانكو ديف لولو دافا وار تي موم موديكو ديف اك كوم مان دي دون نك xewal jo xam ni man nga ko ca def li gën ci yow te gën ci manam sa dundu ak sa fatu mom moy nga fexe ba di tabax diko ko def mbokk yi juma nak buñ ko defare ba pare na jébbal ko sunu yakar cheikhul khadim lolu day melni ne jël manam ndox soti ko ci bir ndox soti ko ci ndox rek te cheikhul khadim mom buñuy jël juma di ko def bu nopi def ko jébbal ko ko lolu day melni dañ ko defal lim gëna a bëgg ndaxte sëriñ bi dafa waxoon ci nuuru daaray ni ne wa buyuti kullaha masajida ya kon loolu dafay am lu muy wane day wane ne sunuñ borom suñ borom ci boppam may na ko xéewal maanaam may na ko tawfiix yi mu mën a bépp kër goo xam ne nii am na ko rek suñ borom bi tabaraka wa taala da ko koy defal mu nekk jàkka loolu nag ci doxinu sëriñ bi ak it bu ñu xoolee mbooleem fu mu jaar daanaka sëriñ bi moom booleem fu ñuy wax ne fii jaar na fa li ci lii gën a firndeel loolu mooy dañ naan fa mu jullee nga nee nga xamee ne moom la ñuy teg suñu suñu loxo kon loolu nag bu ñu yàlla mayee tawféex yi ñu mën ko def tawféex yi sëñ Daam Njaay mii nga xamee ne moom moo ko jël en charge ne da koy def te def ko ci bërëb boo xam ne nii it mbooleem ñi nga xamee ne ñoom ñoo doon ñoo yor alal ci nekk ci dëkk bi soxla woon ko lool waye nak bim ko amé mom xalaatu ci dara luddul dello ko yàlla waye nak dello ko cheikhul khadim lolou mbok yi lu mata sante la waye timit luy soñu la mbollem kep ko xamni ni ab julit la mo xamne sun borom bi lépp loko ko jox dala koy dello wama anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifuhu wa huwa ghayru raziqin la waxon mbollem lu way am ci xewal jumandi don bu fekkee ne jël nga la nga am jox ko yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala loola na nga xam ne langa jox bu doon commerce la dañ naan perto tijaaratan lan tabura lañ koy tuddee maanaam commerce boo xam ne nii doo ca perte mukk moom la kon nag moom bu ko jëlee def ko dañ ko ciy sant yàlla bu baax a baax a baax waaye tamit nag di ko di ko xamal ne ko nag moom am na tawfiixi ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon bi muy wax ci bi mu bi ñu tabaxee masjid madinatul munawwara ba pare Usman ibn Affan radiyallahu anhu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku tabax jàkka sun borom bi tabaraka wa taala dina la tabaxal lu mel noonu ci àjjana kon nag ku def loolu ku ne sun borom bi wala ci ci ci kàttanuk sun borom bi loola da koy am kon nag ñoo ngi ñaan yàlla sun borom bi defal ko ci tawféexi mu mën koo tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim waaye yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina ba noppi it ñëpp muuloo ko barke cheikhul xadim yi am nañ ci yaakaar bu baax a baax am nañ ci yaakaar bu wér ndax bërëb biñ ne waaye tamit am nañ ci yaakaar bu wér a ci jotaay bi ni mu demee nga xam ne day mel ne jotaayu rahma la boo xam ne ni buñ ko xoolee moom lañ ciy gis kon nag ñoo ngi santaat bu baax tey gërëm di ñaanal sun borom bi tabaraka wa taala di ñaanal cheikh mahamadul muntaxa sun borom bi dëgëral ko te kattanal ko waaye tamit Cheikh Mouhamadul Bachir mii ne suñ ginnaaw it sunu borom bi dëgënal ko dëgëral ko ta kattanal ko ak mbooleem képp koo xam ne ni teew na fi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim summa salaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi sëñ Mamadou Mountakha ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool yokk ko ak wér di ñaanal sëñ bas basiro abdou khadir moom it sunu borom dëgëral ko ba liggéey bi nga xam ne mu ngi koy ci yoon bi suñu borom kàttanal ko ci yokk ko ci wér defal ko ci ay ndam yi ndam ndam di nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp muy délégation bi jugee Thiès ak bi jugee Touba yëpp ànd ko ak sunu sëriñ sunu lépp sëñ Cheikh Guédé ndeysaan mu liggéey ci liggéey bu am solo buñ ko nuyoo dina yóbbaale sëñ ñoom sëñ Fallou bu soog ñëpp rek ñu tekk seen loxo di wax ci turu sëñ ndaam njaay nga xam ni raqam lañ ñuy wax ci moom li nga xam ni bëgg na ko sumb Thiès muy ab liggéey bu am solo fas yéene ko liggéeyal sëñ Touba muy mbir mu rëy rëy rëy rëy ndax euh, dañoo yaakaar ni suñ borom moo ko bëgg a dimbali moom daam ba xiir ko ci pour mu liggéeyal sëñ Tuubaa ndax euh, liggéeyal sëñ tubaa dama jàpp ni dafa bokk ci ngëneeli suñ borom yi ba du ku nekk ku nekk rek la koy jox ndax daam Cees la nekk waaye Cees mën nañ fa lim ay doomu aadam yu bari yoo xam ni ñoo ko ëppale fuuf te buñ xalaatoon wara suñ borom defoon seen nopp lu mel nii dinañ jënd fa gën ca Thiès fa gën sa cees bu ko defee mën na koo jëndee lu gën a cher tabax tamit lu dàq lii mu nar a tabax jox ko Sëñ Tuubaa waaye suñ borom xulli nan fadla bi yadillaahi jaa tax yuuti ma yasha mooy dafa bëgg a dimbali daam moom moo tax ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa yombul waaye pay ju rëy ngi ci te moom moo waxal boppam ni wa kullu man xadama ni aw zaara fa najjihi fa najji wax fi waxfir lahu aw zaara moo ni képp ku ma liggéeyal képp ku ma ku ma liggéeyal baa nga ziyaar nga ziyaar ma mooy ñaan naa sama borom nga mucc ba pare mu jéggale say bàkkaar te yaakaar naa ku suñ borom musal jéggale say bàkkaar texare moo fa nekk yàlla na ko suñu borom defal defal na ko ñun ñëpp waaye mënoo liggéeyal sëñ Tuubaa tamit te soppoo ko liggéeyal ko te sopp soppoo moom mënta nekk ñaari dañuy ànd te sopp gi mu sopp sëñ Tuubaa tax na mu jël la gën a cher ci la mu am suuf Cees gën caa palaas gën caa ëpp valeur mu yëkkati ko jox ko aadi sëñ Tuubaa ñu jàpp ni ca yam mu ni suuf si moom Sëñ Tuubaa noppi moom na ko ba noppi waaye génne alalam teg ju ko liggéey ba noppi nii bu noppeet dina ko yëkkat jox ko Sëñ Tuubaa jox naa ko Sëñ Tuubaa kon yéeneem ji kawe na lool waaye da ko defal na ko ku am fay te ku mën a fay nag muy muy muy Sëñ Tuubaa ndax moom moo waxal boppam tamit ni wa man ahabbani wa ku man ahabbani waaw mooy ku ma sopp waaw wakkulu man ahabani aw aw la ilayya waaw farsuqu hudan aw la mooy sopp gi ak liggéey gi ñooy ànd ndax boo ko boo ko soppee ba pare nga jéng jëm ci moom mooy nga koy liggéeyal jël sa lépp jox ko bañ a dese dara lépp nga jox ko Sëñ Tuubaa moo ñaanal suñu bopp suñu borom Niko ko kooku yàlla nga ko jubal ko jox te jox alal te ñun ñi nga xam ni eh, xam nañ dam ci wàllum mu nekk ci yaruñu ci nyin ñi nga ay sun borom wor sëgal ko alal moo mu mën a def lii kon sun borom da koy may ba pare ni ko ñaanal ndax lool lepp gis nañ ko ci ndax ndax daam bu amono yene ta am yalla jox ko won wërsëg yàlla mën na ko fay yene ji waye du taxaw ta seigne touba moko ñaanon ñaanoon muy suus joj jo xamni ñun ñëpp dañu judd Cees ku judd sus ñu ndongo ko fekke woon ñaari famille yu mag ñoko ko ñu mag mag ñu xam Cees njabot lol seigne sun borom dimbal leen ba ñom ku ci nek nga mën sa bop ba nga utal sa bop kër motax tax suusa kenn mus cee ñaari ñaari pak yu den te yëpp ay titre foncier la mu ko jox ko seigne touba waye lol nak du gulit ci mom ndax sëñ dam bu so mi yëkkati fi alquran ju neex ji lool orphelina la tabax fàndeen ay jirim ay jirim dong ñoo fa nek ñu fay jang alquran mu yëkëti seut sëtu bakki bu so yobbu muy jang li ñu ibi fa juma fàndeen mu ngi am juma ci ties gi yëpp mu ngi door am juma mom mi mo fa nek di liggéey liggéey bu mel non kon dañ koy ñaanal sun borom musal ko ci chat moom daam musul ñu ci ñun ñëpp musal ci liggéey bi ba ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee nag dañuy wax waa Thiès ni leen am nañ gan gu mag a mag a mag a mag màgg di ànd ak tamit délégation bu am solo te mbir mi yiw wi yiw wi sëñ daam nee na moom mel na ni dafa ëpp ci moom mu bëgg ko bokk jullit yëpp Rawat waa ak wa ya carrière ga nek kon besba ba na gennu rawat ñëpp carrière gan dang kay e, gatandu e, dalal ko bo pare nga teral ko te ñu am gan gu gëna mag señ sëñ señ basir bakay Abdou ko am ci gan ci Thiès tam tam ñool fa ngir ñool fa señ Touba te muy barab boo xam ne barabu sëñ Touba lay doon barab bi nag moo nekk nii moo nekk nii maquette bi nga xam ni ñett ñetti ñetti bolog la mhm. barab bi mu ngi nekk carrière ci Thiès nga xam ne ci quartier résidentiel yi Thiès la bokk nekk ci xolub Thiès nekk foo xam ni wax dëgg yàlla bu yàlla bu ñuy suñu borom dimbalee ba lii taxaw fa amna naa ci yaakaar ni buñ ci jógee bu dul sakk atit jumaa ju pare ci raison bu nekk am nañ ci yaakaar mbokk taalibe dinañ tabax ci raison bu nekk juma joo xam juma juma dañ koy jox aadee sëñ Tuubaa ndax ñetti bolog la jo boo juma ju mag yi ngeen gis moy bi nga xam ni si lay góor ñi di jullee étage la R plus 1 la R plus 1 la macha allah beneen bi mooy bi nga xam ni moom la soxna di jullee moom it R plus 1 la ci kaw am na centre conférence mais tamit day am li ñu naan bibliothèque numérique nga xam ni lépp luy wàllu xeetu xam-xam yi dañ fay dem di ko fa gëstoo ak ci wàllu jaar-jaaru mag ñi nga xam ni liñ ci jublu mooy mu liggéeyal fa sëñ Touba liggéey bu mucc ayib ndax sëñ tubaa euh, boo koy liggéeyal it li ci gën ci li nga koy liggéeyal mooy defal ko ay barabu jaamukaay yàlla ak ci wàllu alquranam ji te ci loolu la fas yéene liggéey ànd ko ak jullit ñëpp nag jullit ñëpp waaw jullit ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, sëñ bashiru Mbacke Abdou hadr ci taxawaayam ak yéenam ndax wax dëgg yàlla bañ ko tàmbali ba léegi dara ump ko ci mu ngi ci jokkoo ak sëñ Cheikh Mbacke Guède ndeysaan ñu ci am contenté lool lool lool lool lool di ñaan ni sun borom yàlla ñu dimbali ba bu ñëwee tijji ko mu tàmbali ci diir bu yàggit incha allah ñu ñëwaat ñëpp fekk ko kenn bañu manqué incha allah yàlla mën na ko yàlla suñu borom defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te jiital siyaare bi Cheikh Mouhamadul Bachir nii nga xam ne moo fi toog toogaayu xalifa général des mourides Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na yàlla boole sàmm te sàmm ñu ñun ñëpp di ko gërëm ci taxawaay bi taxawaay bi mat na sëkk dara disu ci mboolem ñi fi toog ñëpp te bëgg lu baax ñëpp seen xol sedd na ñu ngi lay ñaanal ci suñu boroom lii la xam ne suñu boroom la ko dénk ci coobareem yàlla wattul la ko sàmmal la ko ba nga am ci ndam loo xam ne kenn mësu ko am tam fekke ko ñun ñëpp wax ji nag daanaka du jar muy gudd ndax liñ ci waroon wax Cheikh Khadim wax na ko la ca des sëñ bi dana ko wax waaye ñu xam rek tuuti ne Cheikhul Khadim sunu yaakaar jooju 1895 ba 1927 dañ demee àjjana fanweeri at ak ñaar la fanweeri at ak ñaar yëpp nag ci résidence surveillée la ko nekk ñu xam ne it amutoon nag tubaab yi benn contentieux du suuf du alal diineem rek moo leen boole diineem rek moo leen boole kon nag képp koo xam ne jóg nga ñu lay tudd nga di ko tudd di la tudd diine war na laa jaral lu na ci àdduna kon nag cantuk daam moom ak ahma lott naa ci sañ bas moo koy waxal boppam waaye li may wax rek mooy bokk julliti Cees jumaa ji buñ koy tabax ay jinne taxut ay malaayika taxut ay jullit tax ñu koy tabax wa anna al masajida lillah na ngeen xam ne it daam mi am yéene jënd ñaari titre foncier yu taqaloo benn bu ne benn bi soixante-dix millions benn bi cinquante millions muy mu fas yéene ko tabax ci àll boppam ne it mu mobilisé na xaalis bi koy defar ba mu àgg. yéen bokki Thiès bokki juliti Thiès bokki réew mi. bu leen ko ca seetaan. na ngeen xam ne ko fa yóbbu ab fer wala ab ciment. yool bu daam am da ko ci am te du wàññi dara ci ab yoolam. te it lu waay néew néew doole nag am na kàttanu ab fer wala ab ciment. te gannaaw sun borom moo wax ne ku tabax yonent moo wax ne ku tabaxal sun borom jàkka mu tabaxal la njënd ci àjjana ngir la bu leen ci kenn jiitu yéen waa Cees ak jullit yëpp te sëriñ bii di yeyoo na fukki yi nekk senegal yëpp fenn fu nekk ñu def fa jumaa ju mel ni Masalikul Jinaan ndax tay la na mbakkanam ay yoon lislaam mm-hmm. الحمد لله قائل في محكم تنزيله لا مسجد نسس على التقوى من من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكو جلدي بكو تعدي العالم الإسلامي جب نيجي يكتسينو كادو تندي قلول سرين توبا الشيخ محمود منتخى ميغا خاني موي في سرين توبا تي جيغو سوف دي نيان مو ياغ في لول تا اندك وير بو ما ماي مي في نيك سرين توبا نيو نو لول am na nag waaye néew na loolu ma jëfandikoo alxalifatul am li tariqatil muridiya li ko waral mooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax na ne mës sa woote tariqa te waxi doomu Serigne Touba dara gënu ko wér kon Serigne Touba muridullahi la woote muridullahi nag kenn génn ci benn tariqa génn ci képp ku bëgg lu baax rek jëm ci yàlla tabbi nga ci biir kon ci ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha mi ko fi nekkal ñuy ñaanu yàlla suñu borom dëgëral ko te sàmm ko ba mu mottali mboolem yéenam yi am ci lislaam yëpp di nuyu bi yëpp ak bokki taalibe yi di dellu siwaat fii ci kàddu yi néew kàddu yoo xam ne yéeg-yéeg la ak xol bu fees ndax Serigne Cheikh Mbacke Guèye mi doon yëkkati kàddoom dëkk bépp xam nañ ko te ñëpp am na fuñ ko teg fi mu bokk bokk na ci. loolu doo ko bokk ak ñëpp waaye fi ko ñëpp teg jikkooma ko ko may li suñ kilifa gu baax boobu daa wax nag di wax ne Cheikh Abdoulaye di wax ni seen doyu ca waaye moom ku ko xam boo ko séenee te jaxasoo moom doo xam dëgg-dëgg pëstéefam ak fi mu ne waaye wax waxam jiitey feeñal na ko wallaahu muxrijun maa kuntum taktumun bu ngeen gisee mu yëkkati kàddu mu mënta wax sax ngir jooy yéeg-yéeg la diggam ak Sëriñ Tuubaa kon loolu lu lu lu lu lu njëg la ndax lii itam yàlla def na lépp waatul bu yootam min abwaabiha lépp ci moom la jaar moom mooy bunt bi ci la jaar ak si ci man dem ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mu fi nekk Sëriñ Tuubaa ki nga xam ne mooy ki yéene jëf jëf ji ci moom la jaar moo ko indi ci ñun ñu àggale ko ci sëriñ bi ba sëriñ bi joxal ci bopp ndigal bañ tànn bis bi ñu war a teg xeer wi mu war a tolloog le 10 ca bisub gaawu te bisub gaawu xam ngeen ne sëriñ Touba lu bari ci la ko def ndax ci la fi bàyyi ko woon dem ci géej gi yu bari ci la ko def ci bisub gaaw kon bisu barkeel la ci ñun kon ñu ngi koy yëgal ñëpp danaa ci dellu siwaat di nuyu itam Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Massamba Kanni ak rakkam doomam Serigne Cheikh rakkam Serigne ak ñi ñëpp ànd ak Serigne liggéey bi di jotle kàddu Serigne bi rek ci mbégteem ndax kenn defalu ko lu ëpp lii ndax moom ab liggéeyam lislaam la génnul lislaam wax naa ko keroog ci bi waa daara Hizbut Tarqiyyah di siyaare may leen Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam xam ne itteem génnut ginnaaw jaamu yàlla yi te jàng xasida yi yëpp ci la dugg amut beneen liggéey ak yitte lu waaye si nit ñi am pësef te dëggu jëm ci Sëriñ Tuubaa kon lii ku koy def ko ne moom ngay gàtt ci biiru liggéeyam ki yëkkati jëf ji nag di Serigne Dame Ndiaye ak rakkam suñ daam bi moo ko def ndax moo jënd ñaar titre foncier titre foncier bi la ci gën a kiimaane mooy pàkk bi boroom ki ko moom njëkk a moom 1912 la ko njëkk a moom 1912 te xam ngeen ne ci la ci lañ indi Serigne Touba Njaarim kon lool am na lu muy firi te pàkk ba kenn musu caa dëkk dafa mel ne Masaalikul Jinaan kenn mu kenn musu caa dëkk këru Njaarim bi noonu la meloon Serigne Touba lépp lu ko suñ borom def rek day mel ne li ngeen di tudde léegi ak réservation moom la ko suñu doon defal lu agsi rek da waxoon na ko Cheikh Mamadou Moussa ne ko sama mbir yëpp noppi naa ci daa mel ne rab rab bi nga xam ne dafa defar ay séram ay soru ay soru rabal ba mu ba mu jekk mu denc ko ci barab fu fu jamono toll ma tàllal ci wenn sor ñëpp ni lii ana fu mu ne woon kon mbirum Sëriñ Tuubaa lépp noonu la demee kon nag moom na xam ne eh, dugal na àllam fu ko mata dugal نح رسول الله دفع وحنا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القصى قطع بنى الله له بيتا او قصرا في الجنه نيان لو تان تاغوم بيتي سا كو ديفالون سون بوم نيغو يالا بو تون سون بوم دا نكو ديفار ابالي سي اديانا كون لولو نان خامني دير اوب كو تيابا كون كو يالا ديفال توفيق سون بوم واخنا سي القران hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min asaabin alimin tuuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon kon joxe sa alal dara gën ko màgg ci lislaam masalu lasiina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim ndax suñ boobu noonu lay jëflante bu jaamam ki nga xam ne dafa jël wenn pepp dugub ji ko ci suuf boo mu màgg bu cay def ay gub gub ne def ay téeméeri pepp suñ boobu noonu lay fayee kon loolu mooy jëf ci yoonu yàlla kon nag na sant yàlla bu baax te xam ne ku yàlla defee tawfeex ba nga jëfal Sëñ Tuubaa na nga xam ne say aaju fajoo ndax loolu moo ko wax waq di xawaa i jëlli si na daa moom fii xidmati wa hablahum maaraamu fi mu ko wax bari na loolu kon képp ku liggéey Sëñ Tuubaa lépp lu si di ragal mucc nga ca lii si di yóotu na la woon danga ko jot kon na ko yàlla dimbale kattanal ko wéral ko ba liggéey bi nga xam ne somb ko ca cees mu nekk ci biir dëkk ba mu àgg jàmm ba mu jébbal sëriñ bi ceeb yi ba sëriñ bi joxe ndigal ñu ubbi ko ñu ànd ko ki nga xam ne moom la tànn mu jiite ji ko ñu àndaat ak moom kon jo ci ndigalu sëriñ bi incha allah buñ ci àggee ci bis ba euh, maay demal sama bopp. ci ndigalam ak ñim ma booleel ñu dem teewal ko fa ngeen xam ne itam jàkka ja jullit yëpp ko bokk taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen ko yëgal ka ci jiitu nag mooy ko ko nekkal Cees ak la ko wër di Serigne Saliou Touré di ko ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéeral ko te sàmm ko gën ko fee sàmm ndax magum lislaam la magum yoonu murid la koo gis xam ne nitu yàlla la kon ñooñu ñu baax leen ci kaw suuf ndax wama ma kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim lolu rasulullah suñ borom negg ne ci kawon su kaw suufa tax kon nit yalla yu mel nonu nek gi nek ci kaw suuf da tax jàmm di fam diko yegel ko yëgal Serigne Touba yi ndax mo fa yor kàddu suñ bi kon buñ ko tuddé taalibe Serigne Touba yëpp tab na ci bir ña nga xam ño fa yor wàllu adduna gi itam tàmbalee ci gouverneur tañ wax ma ci taxawaayam ci kayit mo moo ñañ ko andal ñëpp ba ki nga xam ne yàlla def na mooy meeru dëkk ba di Talla Sylla te yàlla def mu doxali sa doxali ma sama digg ak Sëriñ Tuubaa ndax taalibe ma Sëriñ Tuubaa rek lañ yaakaar waaye yàlla def mu xool ba xelam daj ma mu doxali ma sama digg ak Sëriñ Tuubaa moom itam wax nañ ma taxawaay bi mu ci def ñu ngi ko ci sant di ko jigéen te xam ne yàlla loo ko defal Sëriñ Tuubaa la ko defal kon nag ñi ñaan ñu àgg ci ak te ñu xam ne wa anna al masajida lillahi falaa tad'u ma'a llahi ahadan néegub yàlla néegu jàkka néegub yàlla kon képp ku julli rek kenn génnewulu ca te ñu xam ne alxuraan kat am na lu ñu wattandiku la woon allazina taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al wa irsaadan liman xaaraba allahu wa rasulahu min qablu wala yaxlifuna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum la kaadibun daal ko ca tege na taxum fiihi abadan laa taxum fii abadan kon jàkk joo xam ne xew na lool léegi nag jàkk joo xam ne nit ñi dañ ko tabax te jàkk ja mu wóor la ne tàggale julli ji lay ndax ñaari jàkk yu sësaloo wala jàkk joo xam ne da nga jàkk ji dem julli ji jëdes loolu nax sa bopp la ab jullit jàkk joo ne tabax nañ ko te ussi sa ala taqwa waroo ko faaroom bi di julli ci yeneen jàkk kon loolu itam yéen ñi nga xam ne yéen tabax jàkk ji ngeen bàyyi ko ci xel di ko digal ñëpp itam ñoo xam ne jàkk yi néegu yàlla ndax suñu borom bu doon amul néeg ci kaw suuf jàkkale doon kon jàkk ji nag ñi ngi rafet njortu ci ne mën naa bokk ci la masjidun ussisa ala taqwa di ñaan yàlla na ko suñu borom dugal te daray njistal bañ cee dugg ndax wa rubbama ibadatun kathira qad qad afsadataha lahzatun haqira di ko jeexale rek ci kàddu yoo xam ne dama koy jeexale dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni nga koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataay bi li may bëgg a wax mën naa ne lu génn jataay bi la waaye nag itteel gum ma itteel ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko ñàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafhatu masdurin isa jaasa luxaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sab rek boo xëy génne doo ko tey ndax fan yi chaa'iaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom du ma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee euh, dañuy wax ne wa in isa kunta akram akramtal karima malaktahu wa in wa in kunta akra akramtal la ima tamarada kon am na suñ kilifa gu baax goo ko daa firee ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam wala mu féttéeru dem waaye loolu amul solo ndax Serigne Touba li suñ suñu borom defal kenn mënu koo wàññi du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jëm nañ faa jaar ak moom fu ne jëm nañ faa jaar ak moom mënuñ ci dara jëm nañoo jub moom booba it la mu wax mooy fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnah laha nag wa in lu ci ne ko waxoon kon Serigne Touba loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defandu ñu defaat dañ defandu kon noonu ko Serigne Moussa Ka waxee ci biir mbind bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloo si ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg buy buy ñaan suñ borom delloo si ko Sénégal bi bu tax sabubin min nii lay wax taw bañ ko sabub kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la def fa dara luñ ko mën a jame def fa dara loo xam ne tubaab mën nañ koo nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ te seen bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci deru sëñ Tuubaa te muy loo xam ne nit ñi mën nañ koo saafara seen seen bopp ci benn bis wala ñaari fan waaye nag jàmm bu amee ci mbir day am lu koy sàmm. Mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax. ndax yëmmaloo ko Sëriñ Tuubaa. Mhm. kenn ko fooyee. Mhm. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp. lu mën na caa juddoo. te loolu baaxu ci kon moom itam na maandu. buy waxati na wax ci lam xam. na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom. liñ mujj wax ci Sëriñ Tuubaa nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi nu nuñ ko nettalee sax ndax man diggu ma ko aw ma jotul di ko diglu. waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baadi di ci juum waaye nam ko waxee demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxoon wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk Saxbaan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi Serigne Touba xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag ña rafetlu ko ne ko ah loolu de xanaa mbégte le ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a jiital loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon sa du doon seen coobare mm-hmm. Mm-hmm. force lay doon te la ikraha fi diine daan te inil kaafiruuna illa fi xurur nee ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëriñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at saa suñ xëyee luñ gën a wax ci Sëriñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu doogu ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko dégg te bu mu amee sa bu ma àndee sama sama sama coobari duma ko dégg loolu kon na ci na ko ñëpp xamee noonu am murit nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci Sëriñ Tuubaa ci eh, mel na Cheikh Abdoul Ahad wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon nee woon na am murit day mel ne ëkk mel ne xobu garab nee na xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko dugal ca pax ma ne génn waat ko ca ñun foofu lañ nekk. Sëriñ Tuubaa rek lañ dégmal xoolu ñeneen te xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mi ngi wér suñ digg ak Sëriñ Tuubaa suñu digg ak Sëriñ Tuubaa di di wér di sell muy dëgg muy lu ci ñun luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ luñ dëgmal danañ ko daal ndax loolu ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëriñ Tuubaa wane na ko te Sëriñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuridun an yutfiu noor allahi bi afwahim loolu wa yaaballahu ak wallahu mutimu nooruhu walaw kariha alkafirun kon neexu leen waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbirum suñ Tuubaa dañuy mel ne kuy kuy suul kuy suul ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi kàddu yàggi noonu muy tegu xeeru juma wuy am ca Thiès ka koy def di Serigne daam Ndiaye taalibeb Serigne Touba mu war a nekk le 10 juillet ci teewaayu Cheikh Mahamadoul Bachir ak délégation bi Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha di yabal kon nag mbooleem mbokki cees yëpp mbooleem l'islam bépp mbooleem taalibey Serigne tubaa yëpp mbooleem ñi nga xam ne bëgg nañ def bëgg nañ lu baax saxaar ga départ na ko am sa morsa sànni ca bu àggee ca gaar ba yóbbaale la fa ñi ngi santaat bu baax Cheikh Mamadou Basir ci kaddu yi mu yëkkatiwaat la mu waxoon ca keroog tegu xeeru ila Touba ba ne sëñ Touba saxaar la goo xam ne départ na ku bañ ku bañ ku bañ a dugg ci saxaar gi wala nga jëm koo gàllankoor da romb ci yoon wi fiiraali la kooku mooy sëriñ Touba sëñ Touba tël ta tontu tël ta gestu day liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko mu tëdd ci dëkkam bi di noppalu njabootam gi tasaaroo ci réew mi képp koo xam ne jëfi sëñ Touba neexu la xoolal ku mel ne Daam Njaay sëñ Moussa Ka neen na ngërëmul yàlla ak murit buy dem araamut ku mën ko def si beesu ci yaasin kooku mooy cheikhul xadim wasalaam